hamdu santubur be warna jambe ta julli itimu safateroyko alhamdu santubur be warna jambe ta julli itimu safateroyko fesene bakusangusam sudine muhammad doomi ibrahima faama way ko imam lamaanu na to baax na ta sella nay dalal ak jàmm ci Dies PM TV bi dee abonné goo ñoo ngi lay ñaan nga abonné bul fàtte activer sa cloche de notification bi wane ne saa bu ñu dugalee suñu beneen vidéo di nga jot message bu wax ne dugal nañu vidéo ci Dias PM TV jërëjëf